à quelle heure Balla Gaye numéro 2 arrivé nañ ci kër gi 13h wala boog 14h34 minutes yor benn Mercedes Balla ngi noonu mooy dawal oto bi wala Balla ngi noonu Balla Gaye doo ngi nonu, mu ngi ci Mercedes oh, oh, Balla arrivé na benn Mercedes 450 la yore boy di ngeen ma daane Balla ngi noonu dof bi ñëw na góor Balla Gaye a ngi noonu. Njaga. Balla Gaye numéro 2 ngi naar. ñu xool ban porte lay wàccee a Omar la lion de Guédiawaye ndax mooy oto bi wala. balaa ngay ubbi ubbi nañ ko porte ba balaa ngay wàcc Cheikh a ah oui mu ngi sol benn blouson bu marron bala wàcc na sol benn laafa bu ay carax la sol bala dugg na ca kër ga. Balla ak de Balla Balla Gaye 2 Fils de Balla Balla Gaye 2 Fils de Balla ñu ngi noonu ndeysaan lu rafet waay ah oui ngi sol benn blouson blouson marron la sol ak capuchon ba ca kaw jiital benn mbaxana bu ruus ca biir laafa Balla Gaye numéro 2 egsi ci kër gi Balla Gaye numéro 2 egsi na ci kër gi góor boo taxawee ni du sotti waaw yow kay da nga est-ce que doo décalé tamit. Balla Gaye numéro deux egsi na ci kër gi. ñi farak Eumeu Sène wax naa leen kër bu ruus ngeen di bës ku farak Sa Thiès kër bu vert ah way bës leen kër yi dama bëgg a xam kan mooy play kër ko play kër yaay gagné combat bi. copain woyu ma ñun dañuy dimbali nu fii rek